professionnelle et technique du lycée Seydina Limamou Laye ñoom tamit daal dinañu tàmbali niki ci suba examen yi candidat bi di jàpp ne li ñu jot a def ci épreuve yi dafa abordable ah def nañ si première épreuve bi def nañ ko économie lañ doon def mais ça s'est bien déroulé def nañ daal te ñu ngi yaakaar tamit yeneen i topp mel comme bii nii fii nag jël nañ bépp matukaay ngir rekk examen yi mën a jaar yoon. lépp luy xeetu euh, tricherie yi daal wax dëgg yàlla ñu mën koo moytu téléphone tamit ndax sax du dugg téléphone tamit dañuy fexe daal ba candidat daal du duggatul dara dara dara dara lu dul matériel bi kam yeeg yooyu li muy war a bindee gannaaw bi mu amalee ab dox nemmeeku ca centre d'examen yi. ministre bi ñu denk wàllu enseignement professionnel ak technique di wax ne kontaan na ci examen yi ni ñuy dooree ba noppi di rafetlu forte participation jigéen ñi. mais li ñu gën a constaté aussi mooy présence su jigéen ñi ci ci ci examen yi ci série yi donc fu ñu dem rek euh, jigéen ñi daal defe naa jël nañu foofu raaye euh, au niveau national d'abord am nañu lu mat ñetti junni candidat ak euh, juróom-benn téeméer ak. mais soo xoolee ci loolu euh, li ci presque ñaari junni yëpp jigéen la donc loolu dafay wane ne jigéen ñi soobu nañu ci ci filière scientifique ak professionnels yi. ci fàttali ñaari centre ñoo nekk ci Seydina Limamou Laye fii nag 621 candidats ñoo nekk di ut seen premier diplôme supérieur bu njëkk.